vaccination la conseil des ministres bu mujj bi dégg nañ tamit euh, digle yi nga xam ni njiitu réew mi jox na joxe na ko si bañ ni sax militaires yi dugalaat ci seen loxo mais mm-hmm. militaires yi mu suñu ci génn seen loxo bu ñuy fàttaliku Touba ñoo fa njëkk a samp hôpital mm-hmm. militaire de campagne mm-hmm. yooyu ñuy wax euh, ñu leen ci félicité encore euh, une fois taxawaayu militaires yi ndax solution boobu jamono ji nguur gi mi ngi ci ngir jàppandal très rapidement yiñ ko war a defee ba nga xam ni spécialiste yëpp nee nañ ñàkku bi mooy solution bi Pape Mahawa waaw euh, wax nañ ko euh, crise bi donte am na ñoo xam ni seen xel dalu si waaw mais crise bi du du du fex yëpp dëgg la hmm. mooy la gravité euh, nit ñi ñàkk seen bakkan ñi nga xam ne proportion bi soo ko xoolee ci ñi siiw ak ñi siiwul mooy li Cheikh Yérim doon wax sànq war na junj nit ñi la situation ni mu grave mais mm-hmm. seconde vague bi fépp la gën a mortel gën a gaaw ci àddina bi yëpp la soo xoolee Amérique seen seen président su demee ba waxee na mu waxee xam ne eh, njottam ñaaw na mm-hmm. mais Allemagne bi ñu désigné woon ci première vague bi comme modèle mm-hmm. ñoom ci seen bopp seeni propre limite mi ngi retranché wu France si boppam naka noonu ci difficulté yi ça veut dire que problème bi réel na mais loolu autorité yi wax nañ ko le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak le président de la République successivement nee nañ attention entre octobre ak décembre comportement yi euh, ni ñu gisee mu demee masque bi il faut que ñu jël ay mesures suñ ko deful situation bi dina gën a détériorer wu hmm. effectivement mais léegi euh, c'est les comportements humains en dehors du vaccin hmm. en dehors du vaccin amul beneen pexe bu dul nit ñi seen doxalin saafonte bi yenn xew yi waaye wax na dëgg difficulté boobu dañ ko am ndax hmm. culture bi mi ngi fii il faut que ngénte yi ceet yi ak dëj yi nan la ñuy def ba di ci dem tout temps garda li nga xam ne mooy li nga xam ne mënut a ñàkk pour wéegu ramu yaramu ñëpp. dañ ci warul dem dañ cee waratul sax. dañ cee warul dañ ko warul ko def waaw te mag mag mu mag mu jóg. sol sa daal taal sa oto. dem dëj. wala nga dem kii yow la neex. fulla de ak fulla ak fayda mooy jaay daxaar. donc donc donc loolu mooy wax ji donc de sorte que nag état bi quand même mesures yi ñu mënoon jël fi toll nii jëlaat nañ ko mooy l' interdiction des regroupements fi nga xam ne nag fa la 80 pour cent euh, des nekk mu nekk diggante Dakar ak Thiès ñu imposer fa couvre-feu bi aujourd'hui fermer marché yi nga xam ne yenn marché yi à partir de certaines heures ñu couper ko ñu ñu ay lente ak surtout le masque obligatoire bi nga xam ne dañ ko def partout di waat di ko sol donc def nañ ay mesures pour diminuer ci lii spécialistes yi wax pour diminuer le temps de circulation <coughs> au maximum euh, du virus ci biir réew mi la difficulté nag mooy il faut que ñu ñu natt ne euh, le virus bi dafa déclencher une crise incroyable parce que du doon crise sanitaire rek da doon crise sur les comportements doon crise économique boole parce que soo tëjee réew mi comme yaa ngi joxe exemple France tu déclenches une crise économique soo ko tijjee virus bi daal di dominer sa circulation donc jusqu'à présent le modèle sénégalais quand même a eu à donner un tant soit peu de résultats dans la première vague fi mu toll nii xool nañ ni réew yëpp gaawuñu tous accélérer dem vers le confinement comme ñu ko ñeen ñi defee woon ils sont de faire des couvre-feux 18 heures machin en fonction de la crise et en fonction de l'évolution du virus mais loo ci munti jël c'est la discipline et la mobilisation mhm. communautaire mhm. de la population moo koy taxawal suñu ne mobilisation communautaire mooy li sëñ Diop doon waxtaan doyen job mhm. de Decroix c'est vrai kilifa dina yi ak aada yi tel nañ ci jóg ñu gis euh, sëñ Mountakha Mbacké gis euh, sëñ si Sy Mansour waaye ak yeneen kilifa diine yëpp ku ci nekk jóg wax loolu nag dinañ ko gën a accélérer Euh, d'ailleurs euh, le le communiqué de la bi doon wax sànq mi ngi incité ci dynamique boobu pour que ñu dem vers les chefs de quartier vers les imams vers les acteurs communautaires ñu porter le combat au niveau de la base te ce mmh. combat là il faut que ñu def ko un combat essentiel de l'ordre de sécurité nationale ak pour la santé publique parce que ñii génn àddina suñuy mbokk lañ ñun ñëpp mmh. te koom-koom bi ñuy wax suñu koom-koomu réew la ak suñu sécurité nationale donc il faut que ñu gën a takkaat suñu ndigg nañu ko defee woon ci heure bii daanaka daaw mm-hmm. ñu mobiliser waat métti na parce que ñu ngi ko doon waxtaanee balaa ñuy taal antenne bi fi mu toll nii ñun ñëpp sonn ndax Covid bi mm-hmm. ndax ku ci nekk sa activité gàllankoor nañ mm-hmm. ñun ñëpp waaye fow ñu takkaat ndigg yi parce que suñu takkul ndigg yi su dalee suñu kaw ñun ñëpp ñoo koy bokk yëg loolu daal laa xam ne euh, suñ ko ci continuer jàppale ci nguur gi jàkkale ci armée bi tey it vaccin bi liñ ciy wax itam ñu bàyyi ko ndax Sénégal lu ñu mën a mën polémique dafa am loo xam ne su taxawee ku nekk na fàtte boppam ndax ñaq bi liñ ci commencé di ko wax ak ñiy wër di ko ci wax nañ ko bàyyi ndax ñun fii ku am suñuy at mooy maanaam juddu année soixante dix wala début quatre vingt suñu wagee sa mbagg fekk nañ ci ñaq te ñax boobu wàññiwuñu dara. Mm-hmm. donc dikkuwaay li nga xam ne kilifay réew mi wax nañ ko ne bokk nañ ci initiative COVAX nga xam ne toll na ci cent soixante dix pays. yoo xam ne ñu ngi ci ñu war a fexe ba am solution et c'est aussi un autre enjeu beneen ni wax la encore wax boobu xam naa xëy na sëñ yéen dina ci mun a wax mais ñu fexe ba am vaccin war ko indi nañ fexe ba lañ ca war a def yépp ñun ñëpp Sénégal ñu doon benn say yëkkateendoo doorandoo fexe ba li nga xam ne ràññee nañu ci ci qualité de de réponse mm-hmm. te mu doon une réponse collective mm-hmm. ndax Sénégal dafa am culture de communication sociale ak communication sur la santé moo tax mu efficace looloo tax nañ ci nañ ci nañ concentré wu sur